fële ca palais de la république alors euh, comme nuñ koy defee saa su ne tey si euh, jotaay bi daañu waxtaanee lépp loo xamante ne tukkee na ci discours bi nga xam ne laal na ay parti yu euh, bare bare bare duma ci wéet benn yoon dama ci ànd ki nga xam ne moo di Clédor Sène Clédor maa ngi lay nuyu di la dalal. merci beaucoup ñu ngi lay jaajëfal bu euh, baax a baax ci sa teewaay. Mhm. di jaaraale ci occasion boobu di ko souhaité moom Clédor Sène un joyeux anniversaire tey mooy marqué bésug euh, juddoom. Mhm. di ko ñaanal gudd fan ak euh, wérgu yaram ak xam-xam boo xamante ne day gën a yees à chaque fois parce que askan bi soxla nañ ko Clédor. amin amin et merci c'est c'est c'est gentil amin et mhm. merci. alors comme nous ma ko waxee woon ca ndoxteel ba tey lañ doon teewlu li nga xam ne moo di déclaration bu président bu yees bi doon def di basiru Diomaye Diomaye euh, Diakhar Faye ginnaw euh, modef ben gis def prestation bu euh, serment wax wala boog mu waat ci li nga xamante ne moom la bëgg a yore réew mi ak li nga xamante ne moo koy euh, xaar waxtaan nañu lu bare démb fële ca centre international bu euh, Abdou Diouf ba ne fële ca euh, Diamniadio laata ñu dugg bu baax a baax ci jotaay bi damay laaj li nga xam ne moo di première réaction am concernant ci déclaration bi nga xamante ne Bassirou Diomaye Diakhaye fay moom président bu yees bi def na ko fële ca palais de la République la doon. moom message tey bi. tey kooku du du nu mu tuuti jangat bu njëkk de def mais jangat carrément. Mhm. parce que euh, message à la nation le qui nous est destiné. Mhm. bo xamni daf ko teunk ci ay poñ yo xamni ñu ko junu xaar. Mhm. euh je commence par la conclusion. avant de développer. d'accord euh, li may conclure moy on a entendu un président de la République qui a vraiment pris ses marques. message à la nation concis bo xamni dafa jël en compte préoccupation yi nga xamni mom de lañ doon séntu ci ñom yépp légui nak mu développé ko par ay poñ. maanaam lu lourdeur administrative maanaam euh, euh, doxalinu bureau yi ñu woyafal ko donc loolu am na lu mu ci proposé comme solution ni nañ ko digitaliser maanaam tey jii booy dem di wut extrait ñu jël benn registre naan registre bi lakk naak réer naak yooyu ñu digitaliser ko boo amee ay données yooyu seet comme système gaynde bi ci wàllu douane ak yooyu mm-hmm. ñu yaatal ko ci administration bi pour nga xam ni léegi mbir yi dafay gaaw parce que ci jamono jooju la ñu toll donc euh, loolu lu ama am solo la léegi beneen poñ mooy secteur primaire bi nga xam ne mooy sàmm bi bay bi ak napp bi moom nee na loolu da koy dooleel da koy renforcer ba noppi fexe ba lañ cay joxe ci subvention ki matériel muy dem ci ñu ko yellool dëgg dëgg dëgg au muy dem ci ay businessman parce que gis nañu ay borom daraja yoo xam ne dañu am quota jiw am quota tracteur am quota engrais te yooyu dañ koy jaayaat dañ koy jaayaat sax ba bitim réew moom baykat la ci famille baykat la juddoo te xam na problème yooyu donc loolu yaakaar nañu ni ñun dinañ dina ci mën a indi euh, euh, saafara donc euh, beneen poñ mooy li ñu doon waxtaanee fii xam nga ñu naan lépp dañ koy jox tubaab bi la dañ koy jox tubaab bi parce que amuñu secteur privé bu fort mm. te parfois dañuy xeex sax suñu secteur privé donc euh, baratal bi amoon ak man réeroo ci affaireu conseil la ak du conseil te du conseil mom bokk na ci limuma joytu ma li ñu ko xaaw beddi au profit de Eiffage mais amna ay homme d'affaires yo xamni ne len citer ku mel ni euh, euh, Babacar Ngom tamit euh, beddi nañ ko euh, xex nañ ko ci ay projet yu mu bëggoon teurel fi fii te ñoo xam ne euh, ñu am ay monopole lañu. comme le groupe Mimran ci farine bi kenn du laal sucre bi kenn du laal moy Mimran ak ak Diagne Ndiaye cimenterie bi aussi y a un lobby mais également ci walu agriculture sax da ngay gis un investisseur bu melni mom bëgg ñëw euh euh investir ci mbay ñu indil ko ay ay ay jafé jafé donc euh ci walu pétrole gaz bi ñuy wax ni lepp dañ koy jox étranger yi ba ci service catering euh, manam ñi nek ci plateforme yi seen dund maanaam seen lekk ak ménage yeeg produit yeeg yooyu nga xamni lolu c'est pas très très très technique loolu au moins mënoon nañu ko jox mais dañuy jël ay compagnies étrangères jox leen ko donc renforcement du secteur privé euh, daf ci dellu siwaat daf ko wax ñaari yoon te mu am importance parce que ñun il faut que ñu am des capitaines d'industrie forts yàggoon nañ fi am nag ay fonds de soutien au secteur privé yoo xam ne nguur yi dañ ko defoon lekkukaayu xaalis le compte K2 def naa jiitu na juddu ñu bëri ci génération bi jamonoy Senghor la woon boo xam ni dañ ci jublu woon le secteur privé national par ay financement ñoom ñëpp tous remboursé wu ci kii day 500 millions qui a 1 milliard te loolu jamono jooju 200 millions. nga pour yow nga un capitaine d'industrie, pour ce affaire ce business gën pour nga gën compétitif par rapport ak étranger mais non nous dañ koy jël jox ko seen ay alliés politiques. clientèle plutôt politique. nous mm-hmm. euh, ñu lekk ko mu loolu moo indi woon BNDS bi nga xam ne fa la BDK nekk tey daal di daanu parce que moo doon la banque nationale de développement du Sénégal BNDS donc banque boobu moo doon joxe fonds yi parce que daf ci amoon benn compte bu ñu tuddoon compte K2 boo xam ne moo doon jàppale secteur privé bi loolu dafa ndërmeelu léegi gis nañu DER DER xam naa petit entrepreneuriat la sax kooku c'est pas un bon exemple mais fonds 6 dañ ci prévoir ay fonds pour soutenir secteur privé bi loolu warut a nekk fonds boo xamné dañ ciy soutenir ay politiciens wala ay hommes politiques wala clientèle politique mais ñi nga xamné ñoy gor góorgóorlu sen domaine dans le secteur privé état bi jappalé leen ba nga xamné ñu mëna compétir ak ñeneen ñi loolu nag jàppale bi ci ñëk moy exonération fiscale ñuy defal industrie extractive yeeg étranger yi fii ñëw nga xamné dañ leen di jox sax suuf gratuitement pour ñu samp seen usine ñu teggil leen taxe pour xëcc leen pour ñu ñëw loolu buñ ko defalee secteur privé national bi ñu dem kooku tamit ci la j'ai commencé par la conclusion maintenant je développe mm-hmm. donc euh, gouvernance mondiale bi euh ni bitim rew tëddee manam liñ wax système bi dafa gouvernance mondiale plus juste hmm? respectueuse de nos cultures de nos valeurs et de notre civilisation mm-hmm. fofu dem ci taxaw touti wax bu teunkou la une gouvernance mondiale plus juste respectueuse de nos cultures de nos valeurs et de notre civilisation ñëpp gis nañu ni affaire franc-maçon affaire nouvel ordre mondial ñun suñu ay gëm-gëm ak suñu culture gis nañu ministère de la femme ñu bëggoon dëxëñ par l'intermédiaire de l'UNESCO ci enseignement des enfants de 9 à 12 ans éducation sexuelle Nous avons ñi dénoncé woon nañ ko ak euh, euh, euh, sàmm askan bi donc ñoom Abdou Karim Xrum ñoom waaw mm-hmm.

bo xamni day compte valeurs yoy comme ñun ni ñu ko nanguwulee di proposer le respect des civilisations et des cultures des autres kon ñun mënu ñu fekk ci suñu culture ak suñu civilisation agresser ñu te loolu poñ bu ama am solo la parce que kérok rek lañ doon wax fi nécessité formater ben citoyen bu bees bo xamni dañ kay moñ ci suñu valeurs sociales, culturelles et religieuses donc euh, loolu je crois que poñ bu ama ama am solo la. Mm-hmm. donc mais man fi may euh, lay interpeller bokon na ci poñ yi don wax ci mbiruk euh, monnaie nationale mais demb man dégguma ko ci discours am mu wat ko da nga japp ni daf ci dañ ci dellu ginnaw mom ak ñimu collaborer wala dañuy xaar wala bok ñu toggandi li nga xamantene ne jëm ci mbiruk monnaie nationale. xam nga demb discours d'investiture la mm-hmm. discours d'investiture.

manam ñu automatiser service public ni muy pour plus de transparence ba euh soutien secteur privé bi daf ko baamuwaat je crois que lolu lu nécessaire la parce que am nañu ay ay ay ay privé yo xam dañu bëgg dugg ci yenn secteur yu ñu leen di xeex man mënuma comprendre ku mel ni Mimran ñëw ni farine bi kenn du laal wala waa Sococim Crémien ñëw ni ciment bi kenn du laal y a ay secteur yo xamni ni sénégalais yi bëgg nañ ci dugg mais dafa am ay lobby dafa am ay ay ay ay ay mainmise dafa am ay exclusivité ay monopole plutôt ay monopole donc euh, il faut briser tous les monopoles vous voulez protéger le secteur privé da ngay commencer par briser tous les monopoles naar c'est ce qu'ils ont réussi une fois nga briser monopole direct, rek compétition fay dans di judd naka lañ koy briser ci mu yomb ci ñoom. ci en briser bi mooy. Mhm. mënuñu nangu supporter ni Sénégal bi Mimran rek moo fiy dugal suukar wala ku fiy dugal suukar daf lay jox quota boo xam ne moom koy dugal sinon mu tëj compagnie sucrière am ay ñu dem chômage euh, loolu mooy tamit mhm. du ku mu neex dugg ci farine bi parce que moom moom moom les grands moulins de Dakar ku dugg ci farine bi mu xeex la a ay prix et cetera pour donner la état bi seetaan donc loolu mooy briser monopole. Mm-hmm. briser monopole mooy nga créer des conditions de libre compétition et de concurrence nga xam day bénéficier sax consommateur parce que bu boobaa ku nekk dina fexe gën a pour pour gën a mën a jaay. Mm-hmm. gën a baaxle tamit pour gën a mën a jaay donc euh, qualité prix bi da ci da dépendre mm-hmm. donc loolu ay mesures yu état bi war jël pour briser d'abord le monopole sur le sucre. le monopole sur tout monopole waratu fi am donc lolu je crois que c'est c'est c'est c'est une très bonne chose donc yi moy poñ yi nga xamné en plus de la consolidation de notre démocratie nga xamné fiñu fi 2021 ba légui war nañu fexé ba duñu fi jaaraat lolu waxtané won nañ ko fi mais man suma ma président Bassir Diomaye Faye dafay dafay ni ñun mom lañu ñuy parce que affaire digitalisation pour des raisons de transparence sax surtout waxoon nañ ko fi nee na contrat yi ci affaire mine pétrole gaz dañ koy publier digitaliser ko nga xam ne ñëpp dañ ci dañ dañ dañ euh, mais également renforcement et consolidation système démocratique bi moom nee na dina ci woo waxtaan ak acteurs pour ñu stabiliser ko Sénat ñu remplacer ko par CENI xam nga loolu waxoon nañ fi waxoon nañ ko fi commission euh, nationale électorale indépendante au lieu de autonome ba noppi nous sommes en âge de voter Nous transférons de façon automatique le fichier bi nga xam fichier bi dañuy def à mise à jour avons am condamnation une idée, ak c'est juste une mise à jour Nous avons toutes les personnes en âge de voter seront seront présentes dans le fichier C'est aussi une préoccupation le mais bu de nag dañ êtes stabilisé par une clause d'éternité la constitution bi nga le du président bu rek war ko président day day day day jongante day dem élection. président Bassirou Diomaye fay mandature bi di ñëw mën na nek candidat léegi mënuñu mënatuñu nangu koo xam ni mën na nek candidat. Hmm. ñu ko yow ci sa coobare la ñuy convoqué collège électoral bi Macky Sall gis nga ni mu ñu def. Hmm. jékki-jékki ni aj convocation collège électoral bi dëkk bi tak mom ay mort. Hmm. loolu mo ñu tardeel ba ñu yëm fi ci élection yi heureusement wat nañ ko. loolu bu fekkoon ni dañ ko sas seni à conseil constitutionnel je crois que je crois que problème yoyu duñ ko am. période d'ouverture exceptionnelle des listes électorales. muy waroon def six mois. président Macky Sall jël ben décret ni légui wàññi naa ko sax légui un mois kese la nit ñi di bindu. Mm-hmm. té mom dafa am intérêt ci élection yi. lolu waratul nek ci loxo ben président de la république bi nga xamni mm-hmm. ne. na am droit à un second mandat donc mën na nekk compétiteur c'est pas juste donc yooyu mën nañ ko jox euh, une commission indépendante moom ak conseil constitutionnel ñu xool naka lañ koy gérer ñu gis ni hmm. peut-être que mën na dal euh, ginnaaw li nga xam ne moo di nomination bu ñu ko def moom mu nekk président de la république euh, bu nomination élection élection autant pour moi mu hmm. nekk président de la république sénégalais FALCO, avec 54,28% des suffrages léegi moom à la suite mu daal def benn démission boo xamante ne xam nga dafa nekkoon secrétaire général au niveau de PASTEF Mm-hmm. mu démissionné est-ce que lolu xel mën na dal que mom euh, Bassirou Diomaye Faye président bu yees boobu tëddee njaaxaandaay ci lépp lu mën xew ci mbiru politique pour mën doxal li nga xamante mom moom la ko askanu Sénégal di xaré mais bien sûr ñom lolu lañu ñu won sax motax mom moom mm-hmm. xaarul élection sax pour démissionner du parti mm-hmm. xaarul élection tamit pour génne euh, déclaration de patrimoine donc mom liko war xaarul mu jot sax pour mu def ko daf ko def donc euh, loolu c'est c'est c'est rassurant parce que ci discours am c'est pour être au-dessus de la mêlée manam baña nek juge et parti motax euh, de ses mandats au sein de son parti donc euh, lolu mom lañ don sàkku bokon na ci càkkutee fi ci commission euh, CNRI commission nationale de réforme des institutions mais président Macky Sall devenu ni moom du bàyyi du bàyyi APR mënu APR mm. donc heureusement on a un président qui n'était même pas chef de parti mais responsabilité yi moo amoon ci partem sax da ko da ko da ko da ko da ko dindi. ban état d'esprit nga gisee ki nga xam ne président Bassirou Diomaye euh,